waa Sénégal waa àdduna ñi ngi leen di nuyu di am mbégte lool ni ñu leen koy defalee altine bu jot mbégte lay doon di kontaan nag di wax ne ñi ñu ko jagleel am nañ yaakaar ne ñi ngi toog di ñu seetaan ni ñu koy defee altine bu jot gannaaw bi ñu nuyoo kenn ku nekk ci turam ak ci santam di sàkku ci kenn ku nekk ñaan di am mbégte lool dellu siwaat ci seen émission diaspora fépp fu waay mën a nekk bi nga xam ne moom la ñu jagleel képp kuy doomu Sénégal nekk bitim réew altine bu jot nag ñu ciy dalal nee naa leen émission bi dafa am ñaari rubrique yoo xam ne dañu am ci biir chaque fois bu ñuy liggéey rek dañuy jéem a xool lan moo koy gën a mën a yokk yóbbu ko ci kanam ci biir loolu ma ne leen dañoo créer rubrique boo xamante ne rëccu lañ ko tuddee beneen bi ñu tuddee ko li nga xam ne moo di success euh, success story mu nekk nag ñaar yoo xamante ne moom moo ëmb àdduna ndax àdduna lëndëm la ak leer guddi ak bëccëg coono ak bànneex ba tax na képp koo xam ne yeewu nga dem ne da ngay génn sa réew bàyyi sa njaboot ginnaaw xamuloo la ngay fekki ndax ëllëg kenn moomu ko kudul suñu borom ñuy am mbégte nag lundi bu nekk ci li nga xam ne moo di télévision Futur émission diaspora dellu si waat waaye tey jii nag dafa dellu si ci histoire boo xamante ne histoire boo xam ne dina neex képp kuy sénégalais wala ngay africain wala képp koo xam ne rek yaa taamu seetaan TFM altine bu jot ci waxtu wi. histoire bi ñu leen di raconter nag c'est l'histoire d'un jeune sénégalais nga xam ne dafa génn réewam nag dëkkoon Pikine jóge fi daal di dem fi nga xam ne moom moo di Italie plus précisément fële euh, ca Sicile bi mu demee rek comme moroomam yu ba di jéem a ut loo ne dina ko suturloo njabootam mooy ñi nga xam yi dem bàyyi te ci incertitude la ñuy dem ndax ba ñuy dem xamuñu lan la ñuy fekki ndax xamuñu fan la ñuy jëm mais jóg nañ daal dem jom ñu lug leen ñu dem di uti ngir lu ñu indi pour lu ak li nga xam ne mooy yokkute ak économie dëkk bi ci loolu nag moom ñi ngi koy wax Xali lii Xali dem na euh, Italie ba mu demee Italie xool na foofu yëf yi xaw a dëgër mu jóge fa daal di dem fi nga xam ne moom moo di Belgique Belgique ñoom xam naa ràññee nañ ko bu baax plus précisément Bruxelles ndax boo waxee dañ naan mooy le héros du métro belge ndax dafa am loo xam ne dañ ko xamoon ci doomu Sénégal mu di jom ak mën a jàppale ak solidarité tax mu ñulug ko ba nga xamante ne bii gis na nit koo xam ne mi ngi nekk ci jafe-jafe xoolul ban couleuru der la am mu daal di sauter jàppale ko secourir ko Euh, ci euh, li nga xam ne moom moo di métro bi ndax waa ji da doon am accident te kooku c'était un belge mu jàppale ko bi mu ko jàppalee nag ñu def ko héros national ba buuru dëkk ba nga xam ne moo di euh, bu Belgique daal di koy jël sargal ko honoré ko lii la ñu soxla ci doomu Sénégal waaye nag tey jii intérêt bi ñuy am centre d'intérêt bi ñuy am li ñu bëgg a waxtaane mbokk yi ba tax ñu dalal ko tey jii fii ci plateau bi mooy wane ne rek àdduna mën ngaa commencer ci lu métti yàlla dimbali la ba nga xam li nga doon ut nga dem ami ko ndax nag ci jaar-jaar dafa am solo moom mooy ni euh, thème émission bi tey Khalil lii la Belgique la jógee Bruxelles ñëw Sénégal nemmeeku si ay mbokkam ndax nag ci acte bu héroïque boobu mu def am na loo xam ne feeñ na ci ba ñu jot ko ci am euh, séjour kayit yoo xam ne may nañ ko ci waaye loolu yëpp dañ koy waxtaane di ay ponk yu am solo ci seen émission diaspora xalil maa ngi lay nuyu di la bàyyi ak yi xam naa ne waa Bruxelles ngay njëkk nuyu ba pare <laughs> door a nuyu waa Pikine nuyu naa la di la dalal ci plateau bi waaw asalaamaaleykum Kebs ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci bi mhm. euh, maa ngi ñaanal samay waajur fa lañ nekk ci armeeru Pikine gënal leen foofu ñu jógee ndax mhm. àddina moom demante maa ngi ñëw la allahumma amiin bu loolu weesoo it maa ngi nuyu téléspectateurs yi aussi di nuyu la xalif général de TFM di Youssou Ndour mhm. en fait di nuyu ñëpp ñoo xamante ne ñoo ngi fi liggéey vraiment aussi di la remercier bu baax mhm. ndax yàlla mi nga xamante ne mooy tax ñi xamante mhm. yàlla def maa ngi ñu xamante Bercy kon mhm. boog maa ngi lay sant bu baax xam nga di la gërëm bu baax vraiment ci invitation bi ma invité xam nga maa ngi nuyu suma waa dëkk Agnam Siwol Sinthiou Siré partout waa Agnam yëpp maa ngi leen nuyu mi samini bandiraɓe kala to mbaɗa wonde hannde aɗa hetto oɗo émission mi samini mi jurimama vraiment maa ngi sant sama nijaay aussi di sant vraiment samay mag waaye tamit dañoo ne ku la defal lu baax soo ko waxul suy lim ay noom la ci may remercier sama benn mag bu baax je pense que moom xam na boppam quoi. xam nga mhm. vraiment aussi di la remercier bu dëgg la remerciement bi euh, télé bi doomu sénégalais yi lañ ko ubbi la ñu mel ni yow ak ñeneen ak ñeneen moo waral li nga xam ne moom moo di diaspora émission bi nag ñi nga xam ne ñooy seetaan un ci àdduna bi dinañ mën a participer tey waxtaan andi ay ponk moo xam loo xam ne seen soxla la moo xam bëgg a participer ci ki nga xam ne moom moo di suñu invité xool yan encouragement nga koy sànni waaye nag dañuy dugg ci histoire am leen ko moom nee naa leen 2006 la demoon fële ca Europe li nga xam ne moom moo di ba ngay jóg di dem pikin nga dëkk di doomu Sénégal euh, nga jékki-jékki jóg ne da ngay dem bi nga demee tamit euh, Italie nga njëkkee mhm. Italie Sicile nga demoon mhm. lan moo la motiver woon ba nga dem ak ba nga demee yan jafe-jafe nga fa dund ba tax nga jóge fa dem fii di Belgique oui en fait euh, maa ngi lay remercier émission bi bu baax mhm. je pense question bi dafa am solo mais je pense comme ni ñu koy waxee ah ku nekk bu doon sa sago fi nga juddoo magee fa tekkee fa mais je pense que tey jii dañoo doon ay xale yoo xamant ne je pense que dañoo nekk ci yoon xam nga boo nekkee si benn dëkk mu xaw a dëgër tuuti je pense que mhm. ñëpp aussi mënuñu fi am liggéey comprendre mhm. dama toog fii xam mhm. xam nga ma ne pas mënuma dem aussi jéem a dem xam nga ba loolu tax je pense que euh, comme ni ma la expliqué woon et que tey jii euh, àdduna moom la te je pense que ñun ñëpp tamit ay immigré lañu mais man dama gëm sama bopp gëm sama laaf gëm ne que man dama ci war a génn xam nga mais aussi boo nekkee ci ci ci ci yoon nga nekk xale je pense que waroo dépendre ci say mag wala ci say frère xam nga war a gëm sa bopp gëm ne ki yow da nga ci war a génn xam nga mhm. man ba loolu tax ne nekkoon naa si dëkk yu bëri xam nga mhm. parce que man voyagé naa bon si mhm. dëkk yu bëri léegi bi ma fa demee it bon man nekkoon tamit di galérer comme ñëpp parce que boo fa nekkee amoo kayit je pense que dafa metti je pense que man dund naa guddi yoo xamante euh, guddi yu metti guddi yoo xamante wax dëgg yàlla la guddi bu nekk it ay coono ak ay jafe-jafe xam rek laa ci daj mais dama jàpp ne comme ni woykat bi daan wax rek je pense que dëkku bànneex boo gis rek yoon ba mhm. dafay tiis mhm. soo ko ñemee di nga dem boo demee di nga bànneexu soo ko ñemewul nag doo dem bay bànneexu ba looloo tax je pense que bu doon sax yaay doom du jooy nit ku nekk rek fi nga juddoo màggee fa tekkee fa mais dañuy dem xam di xool ba yàlla fekk si ñu mm-hmm. yàlla fekk si ci jafe-jafe yooyu am na yoo xam ne doo ko fàtte parce que comme ni nga ko waxee dund nga guddi yu métti yoo xam ne yu métti la. Mm-hmm. te bëgg nañ ci sukkandiku parce que dañoo bëgg a won nit ñi seetaan ne. Mm-hmm. ñoom xam nañ ko sax waaye dañ koy gën a dëggal rek. ne kenn newu fi yàlla rek a fi ne. ndax nga jógee pour dem. amuloo woon papier nekk clandestin dafa métti mm, condition yi nekkee woon tam nekk na loo xam ne lu métti woon nga est-ce que mun nga ci ñëwaat ak nekkinu Sénégalais yi parce que des fois di nga nekk ci euh, benn dëkk di liggéey mais boo ñàkkee ay kayit boole dana la ca fekk wala yeneen ak yeneen jafe-jafe yoo xam ne bëggoon naa nga souligner ko laataa ñuy seetaani éléments yi. voilà je pense que nit ki moom foo mun ti nekk xam nga boo jàppee ne yàlla mooy joxe. comprendre boo jàppee ne que yàlla moo mun a moo sàkk doomu aadama te yàlla aussi moo mun a joxe doomu aadama comprendre. Mm-hmm. et je pense que loolu man sama life man du ma xool li nekk sama ginnaaw mais man dama jàpp ne dama nekk si yoon te dama war a dem. comprendre mm-hmm. foo dem di leen fekk ñu bon it foo dem di nga leen fekk xam nga mais l'essentiel yow xamal la fi jógee li tax nga jógee fii comprendre boo demee aussi jàppal ne yow da nga dem yow lan nga dund lu métti loo xamante ne nit def na la ko te ko fàtte waaw pense que bëri je pense que bëri na quoi xam nga par exemple léegi euh, des fois par exemple léegi mun nga disons par exemple léegi mun nga nekk xam nga par exemple dafa doon Sicile mhm. te Sicile dafa doon par exemple jox la benn benn benn benn firnde xam nga Sicile dafa commencé Lampedusa mhm. mooy gars yi fu ñuy duggee comprendre mhm. ñëw ba Messina foofu la Sicile yam comprendre foofu tamit boo fa nekkee dafa am benn euh, benn xeet boo xamante ne te aussi boo fa nekkee ay xeet bon daanaka ay ñu bon rek par exemple euh, mhm. bëri nañ fa quoi mhm. disons mhm. mais aussi am na tamit ñu baax te italien am na ñoo xam ne ñoo xam ne aussi dañoo bon mooy comme fii rek quoi je pense que foofu tamit ba suñu mbokk yi comprendre am na ñu baax am na ñu bon mais je pense que j'ai pas le droit à condamner nit ku nekk boo xoolee sa bopp comprendre ak say coono ak say jafe-jafe je pense que coono bu nekk war na mën a doy sa problème bopp et je pense que tey jii euh, man fi ma nekkoon noonu par exemple léegi disons

comprendre mhm. Mhm. des fois aussi mën nga am job nii parce que tamit job sens la am na mhm. ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne aussi euh, amuñu kayit ñoo ngi am job je que yàlla moo sàkk bépp doomu aadama nit ku nekk am fu mu jaarle sa wërsëg ba tax ñi doon immigré ñi toog fi si dëkk bi et je pense que tey ji je pense ñu ñëpp ay immigré lañu parce que ñu ñëpp dëkkuñu fii xam nga mais àddina lu ci am sol rek mooy góorgóorlu gëm ne yàlla mooy joxe loo ci góobee nga gar ko man sama la dëgg la sa life émission waaye du tere xam naa ne du lépp la mën a tënk sax di ko wax ci télévision ndax bu ñu déggee ni ngay waxee rek am na yoo xamante ne xam naa ne euh, des na ci waaye loolu yëpp comme ni nga ko waxee da ngay avancé mm. euh, li ci sa ginnaaw nga weesu ko waaye jàpp nañ ne euh, xëy rek ndar ni ñu koy wax tëbul tëb rek sotti ci benn fan am na jafe-jafe am na jaar-jaar ci biir loolu am na loo xamante ne def nga ko sa histoire damay bàyyi laasana mu teg éléments yi ñu expliquer exactement naka la demee woon. parce que da ñëw sauver benn belge. est-ce que mën nga ñu ci introduire tuuti laataa ñuy seetaan premier élément bi. waaw xam nga nuñ ko comme ni ma la expliqué rek. Mhm. xam nga yàlla mooy jël sa wërsëg. di ko jaarale fenn. lu mhm. sax déjà wax na ko. Mhm. de passage maa ngi koy nuyu. xam nga mosoon naa de voyage benn dëkk bu xaw sori. benn Chypre yooyu noonu. côté Grèce yooyu Chypre yooyu noonu. moo fa doon liggéey am benn xam nga boo nekkee par nit ki ñuul ni ngay liggéey. Mhm. nga nekk tubaab. Mhm. des fois tam gars yi ñëw laaj la naan may may friend where you from disons. Mhm. léegi man leen man am from Africa ñu ne ma fu ma nekk am from Sénégal West xam nga. ma ñoom vraiment xamuñu Sénégal bu baax mais xam nañu Youssou Ndour. xam nañu Baba Maal xam nañu El Hadj Diouf. je pense que yàlla mooy jël sa wërsëg di ko jaarale fenn man loolu laa jàpp comprendre te euh, de passage it maa ngi juste. éclaircir benn affaire bi ma moom Mamour Mbacke waxoon en Belgique dafa ne nit ki yàlla baaxel nga xool ko bëgg kaa sikkal wala di sikkal njabootam mu ne xoolaatal sa bopp di nga fa fekk jafe-jafe yu bëri ak coon yu bëri te jafe-jafe bu nekkit war na la mun doy sa problème bopp mu mel ne lu am solo nga wax te ci kaw loolu dañuy dem seetaani ngir mm. gën a mën a comprendre mm. di invité téléspectateurs yi à ñu xool bu baax li nga xam ne moom la ñuy teg ci biir diaspora ba pare nag ñu mën a réagir ci numéro yoo xam ne Lassana dina ko affiché tout à l'heure au bas de votre écran ñu dem xooli histoire u Khalil daal di dellu siwaat ci waxtaan bi nga xam ne ñun ak yéen ñoo koy bokk ci seen émission diaspora ñu dem ñëwaat cela, Lee Kali, celui qu'on a surnommé le sauveur du métro, va être régularisé. Un titre de séjour vient de lui être octroyé grâce au pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Une façon de récompenser le jeune Sénégalais pour son courage et son sens du civisme. Benjamin Ney. On vous avait raconté son histoire. L'Icali, en septembre n'avait pas hésité à risquer sa vie pour sauver un homme. Sans penser au danger, il avait sauté sur les rails du métro à la station de Beaucaire. Un voyageur happé par une rame y gisait, inanimé. Aujourd'hui, ce jeune Sénégalais, en séjour illégal, vit sous les toits dans une petite chambre de bonne, à un jet de pierre de Matongué. Mais sa situation pourrait bien très prochainement s'améliorer. Le jeune homme vient d'obtenir un titre de séjour d'un an renouvelable et qui, après trois ans, pourrait devenir définitif. Un titre de séjour qui lui permet surtout de gagner sa vie. Mais je ne l'ai pas fait franchement pour ni des papiers ou bien ni autre comme un héros. Peut-être que j'ai fait un acte héroïque, mais je sais qu'il y a des gens qui sont braves, qui font des actes héroïques dans ce monde. Et peut-être que moi, j'ai fait cet acte, bon, d'être humain, quoi. c'est le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration Melchior Watley qui a décidé de faire bouger la situation de l'Italie. Il a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour le régulariser. Mais la décision du secrétaire d'État interpelle ceux qui sont tous les jours aux côtés des demandeurs d'asile. Ils se réjouissent pour l'Italie, mais se demandent pourquoi lui et pas un autre les Pakistanais, les Afghans, ça, eux, ils peuvent toujours attendre. Hein. alors que eux, Vous comprenez la nuance qui existe entre le fait du prince, le, le pouvoir discrétionnaire, ce qu'on appelle le fait du prince. Lui, tout d'un coup, il va décider qu'à cette personne ou à telle, à autant de personnes, il va donner le papier. Mais à ceux qui ont le droit, non. Cela, on va laisser comme ça, euh, dans l'indifférence. L'ICALI a aussi un dossier favorable, insiste le secrétaire d'État. Son acte de bravoure n'est qu'un élément parmi d'autres. Mais loin de la polémique, deux hommes se réjouissent de la nouvelle. Likali et Chauki, le voyageur que le jeune Sénégalais avait sauvé et qui, durant des mois jusqu'à cette rencontre en mars dernier, ignorait tout de la situation de son sauveur. xal xali mu mel ne euh, loolu mooy euh, euh, histoire bi nga xamante ne secoué na Belgique yëpp ah ba pare mu mel ne dafa am benn polémique boo xam ne jur na ko ci biir mais est que mun nga ñëwaat expliquer ñu naka la demee woon jour boobu même. waaw c'est qu'en comme ni ma la ko waxee noonu xam nga des fois dina benn affaire bu ñëw nii mais yow yow sax sa bopp doo xam. li tax yàlla jaarale ko foofu comprendre mhm. man dama jàpp nekk rek xëy na li waroon am la mhm. comprendre parce que man c'était à vingt trois heures yoo xam nga mhm. xam nga Europe des fois may job yu métti yoo xam nga ay bëccëg wala des fois aussi gars yi woo la xam nga si ay job yu métti yoo xamante ne des sax léegi nag bi mu fa jógee noonu di dem après ci laa dugg si métro bi noonu waroon mhm. dem te temps yooyu bon vraiment affaire yi dafa dëgëroon trop xam nga am mhm. sam benn grande passage maa mhm. euh, ma wooyee mu ne ma sa waay xam nga foofu des fois gars yi ma sa waay instant bi togg naa que da lekk ma ne ko non instant bi dama xaw a suur naa quoi ah, xam nga guddi boobu noonu mbay dem xam nga léegi nag euh, dama ñëw ba benn zone bu ñuy wax Déboucquère après si laa wàcce comprendre léegi nag bi ma wàccee noonu Mm-hmm. mais comme ni ma la ko expliqué rek comme mm-hmm. que yàlla moom dafa yor affaire yoo xamante ne ni mënu ko comprendre mm-hmm. léegi nag bi ma wàccee noonu en di dem si laa gis benn waay boo xamante ne mi ngi doon dugg si métro yi parce que métro yi day kepp nii xam nga mhm. léegi nag bu mu duggee noonu après euh, porte yi bloqué si si si si si doigt yi mhm. après nag si le métro bi dem ànd ak moom comprendre man dama foog waaw dafa kepp baaraam yi ànd ak moom comprendre xam nga métro yi foofu dafa gaaw métro yi dem dagg lox yi waa ji waa ji wadd boo xoolee image sax di nga gis euh, lox yi yi dafa dagg léegi bi lox yi daggee après bon si la wàcc noonu xool bon affaire yi lëndëm comprendre mhm. bi affaire yi lëndëmee nag xam nga après laa la woo police xam nga man leen mm. vraiment y a un mort man dama foogoon sax waa ji dafa dee parce que si circonstance yooyu ci 900 volts te yàlla xam ne man bi mu fa doon tëb sax man xalaatu kon yow da dama tëb ci suuf ci 900 volts bi fa laa tëb mm-hmm. xam nga léegi nag bi ma wàccee noonu man yàlla xam ne bi may tëb noonu man sóoraalu mu sax affaire yi dafa am courant wala amul courant xam nga mais dama xool defee nii gis métro bi que y'a euh, une minute dina xam nga hmm. après nag si laa woo gars yi bloqué yëpp voilà métro bi moo léegi nag après bon si laa woo policiers yi après man leen ñaaw moor ici bon après gars yi ñëw xam nga bu ñëwee aussi bon ñu entendre moo quoi après nag si hmm. lañ ma bàyyi ma dem xam nga léegi nag lu loolu defee waa ji xamoon quoi waa ji mi nekk na en commun des,

gis ni acte de bravoure la. voilà parce que boo xam ni parce que am yow rek yaa ñeme woon tëb foofu mm, noonu. te calculer woo courant bi comme ni nga ko waxee. bi amee aussi mu am lu am solo parce que fii tam ñi gis ni euh, acte héroïque lañ wax xam naa après ci kanam dinañ xool image yi. Mm. Euh, ñu gis ni Nouvelle Afrique sax bind na ko que Euh, le roi léegi prince la woon période boobu mais léegi c'est le roi moom moo la décoré ak benn euh, distinction boo xamante ne bu am solo loo xam naa dinañ ci ñëw ci kanam mm. ndax acte boobu nga def mm. mais euh, bi ñuy seetaan léegi élément bi nga xam dafa jàll ci journalu seen télé bi mm. dafa mel ne dafa jur benn polémique parce que dañ la jox ay këyit mu mel ne dafa am ñuy toog di kaas ne pourquoi ñu lay jox këyit yooyu loolu lan nga ciy wax parce que tamit on bi foofu yëpp am na fa daal ñiy <laughs> kaas yooyu effectivement xam nga comme ni ñu ko waxee rek je pense que àddina foo mun ti dem di nga fekk ñu baax di nga fekk ñu bon di nga mhm. fekk xanaa xamoo am na ñoo xam ne bu ñu dëggee am nga kër dañuy mer am na ñoo xam ne <laughs> bëgguñu kenn avancé comprendre et je pense que man euh, te ji lii du sens peut-être mérite la parce que man mhm. sama life dama ko yàgg ñafee xam nga mhm. sama life dafa metti est yaa ngi dëgg déjà condition de vie yi nga nekk voilà parce que man dama jàpp ne que man lépp loo xamante ne it war naa fa dem dinaa fa dem comprendre su ma demee affaire yi dëgër damay avancer dem ci beneen yoon comprendre je pense aduna ay lambatu mhm. ay ay ay comme genre lamb la quoi. da ngay mhm. lamb daj des aussi. ñu ne ñoom chaque fois aussi ñu ngi sauver ay vie à façon. voilà et ñëw ci pouvoir discrétionnaire bi. Mhm. ñu ne euh, loolu est-ce que mën nga ko woo expliquer téléspectateur dafa mel ne. loolu nguur wala kuy jiite rek moom moo am possibilité def ko te amu ci lenn parce que apparemment amul loi boo xam ne euh, dafay voter ne mën nga. Euh, récompenser nit à travers des papiers pour acte de bravoure. voilà voilà c'est ça xam nga loolu tamit. Mm-hmm. Euh, beneen débat comme ni ñu koy waxee rek c'est ni mu ko expliquer quoi xam nga mm-hmm. des fois am na loo xamante ne soo ko defee nga def mm-hmm. te yàlla tax te seetoo ci doomu aadama mm-hmm. yàlla bu la fayre da ngay kontaan je pense que loolu day ñëw de voilà c'est que ma defee loolu dafa de passage it maa ngi nuyu sama benn femme bu baax benn jigéen joo xamante ne jigéen ju baax mi ngi tudd son excellence euh, honorable député Joël Jeannot wax dëgg yàlla bu mu déggee histoire affaire bi avec polémique te aw moon kayit moom Mm-hmm. en personne. Mm-hmm. moom moo jël dossier yi woo mu ne ma sawaay ah mm-hmm. lii yombul de mais dinañu wasul ak xool comprendre. moom moo bind la fondation Carnegie Hero Fund. waaw mu nekk nag euh, fondation boo xamante ne bu am solo la. voilà euh, que fondation américaine Carnegie créée en Belgique en 1911. lañ ko lañ ko créé euh, cette institution a déjà honoré plus de 3000 Belges. Mm. pour leur courage. voilà ba pare nekk na tamit boo xamante ne Amérique aussi ubbi fa beneen fondation elle a été également euh, créé aux États-Unis euh, en mémoire à un industriel de Pittsburgh mu mel ne nag kon lii fondation bu am solo la ndax lu ñu ubbi depuis 1911 mu euh, couronné de plus de 3000 belges kon foog naa ne lu am solo la. voilà parce que xam nga yàlla xam ne man sax affaire yi sax xaw ma ko man xam nga man boo fa nekkee yow dafa am lu la yite loo xamante ne du comme genre. mais xale est-ce que mën nga. gën a camper affaire bi expliquer ñu. contexte bi mu la fekkee ba ngay sauver si euh, kooku noonu xam naa ne képp ku nekk euh, à l'étranger am nga jouru désespoir am nga jour yoo xam ne dootu ci bëgg dara mm. même ñi nekk fii sax mm-hmm. mais est-ce que mun nga ñu expliquer parce que condition yi nga nekkoon foofu ñi ngi koy wax sax ci euh, image seetaan mm-hmm. c'était pas trop ça ak mm-hmm. sedd bi du chauffage du dara loo am est que mun nga ñu expliquer loolu voilà xam nga foofu xam nga Europe déjà boo fa nekk amul kay déjà que yaa ngi prison prison à ciel ouvert xam nga prison du nekkul dañ leen tëj si kason rek tëj la fa mais mhm. dafa am prison à ciel ouvert loo xam ne sa waaye da ngay dox nii xam nga mhm. da ngay sóoraale coo yi balaa ñu lay jàpp xam nga mhm. wala des aussi da ngay nekk sa xel foo boo génn rek xamal dem nga mais xamoo est-ce que di nga di nga dellu si je pense contexte yooyu noonu man bi mu fa nekkee xam nga vraiment def naa lu ne vraiment def naa def naa li mu war a def xam nga mais dama jàpp ne ko ñëwul yàlla xëy na jotugul comprendre. mais taxul nga découragé voilà taxul ma découragé. nekkoon naa fa di jaay comprendre mhm. nekkoon naa fa aussi xam nga gars yi dina mu say bagage mhm. man dem sama bopp non man man est à dire que man dañ may mos nañ ma jàpp mos naa dugg jeel comprendre mhm. comme prison xam nga je pense que loolu yëpp xam nga ci immigration bi la parce que des boo boo nekkee si dëkk jàmbur boo xamante ne kenn woowu la fa yow mi yaa takk say bagage nga dem fa je pense que lu la fa dal rek da ngay jàpp ne que vraiment mooy loolu xam nga te yàlla def aussi xam nga tamit boo demee si ay dëkk yoo xamoon ne par exemple léegi ma jox la benn exemple mhm. da dem par exemple xam nga nit ku ñuul si boppam moo sonn mhm. surtout boo demee parce que boo xoolee européen ñoom lu ñu respecté américain yi xam nga mhm, fekkee par exemple ne yow africain nga je pense africain si boppam moo sonn xam nga mais en fait boo nekkee encore seen bi je pense courage ak jom rek moo la fa mën a génne dëgg la xam nga courage ak jom te man dama mus a gëm sama bopp musa gëm sama laaj gëm nekk man ñaanu waajur lu am solo ci doomu aadama xam nga moo tax bi ma amee affaire yi sama yaay laa ci njëkk xalaat mu doon vraiment jigéen ju mun góor xam nga mhm. jàppale ma vraiment nekkoon ci ci affaire yi ci feebaroon comprendre mais chaque fois cancer moom moo ko rey chaque fois su moo ko woowee uh-huh. daf ma doon ñaanal xam nga affaire yi day dëgër xam nga mais dafa ma doon ñaanal te gëm naa ni ñaan yooyu noonu des fois comme ni ñu koy waxee ñu ne ko ñu ne sa waajur balaa ngaa xam ne euh, euh, fu mu toll si yow day génn àddina yàlla dafa mm-hmm. def sama yaay dafa génn àddina deux semaines mm-hmm. après gars yi woo ma ñoom la héros du métro régularisé c'est là doo comprendre ñaan yi ma doon sama yaay di ma mm-hmm. ñaanal xam nga lu am solo comprendre je pense que ñaanu solo ci nga war a def que life is goes la vie continue yàlla rek moo mën a jàppale doomu aadama voilà suñu la euh, mu nekk un jeune boo xam ne sénégalais di wax tey ñu indi koo xam ne immigration métti na ci moom waaye àdduna la euh, léeg-léeg nga jékki-jékki am loo xam ne yàlla da ko teg sa yoon ndax kenn newu fi comme ni ko waxee euh, gëm sa bopp mooy li wóor histoire am lañ leen di raconter tey à travers cette émission ba nga xamante ne bii nag jox nañ ko kayit jur na ay polémique yu ndaw ñu gis ay nit di wax ak yu demee def na li nga xam ne moom mooy li gën ba tax tey jii comme ni ñu leen koy defalee saa bu nekk ñu leen di defal altine seen émission jaspora ñu bëgg nag ngeen dugg na waxtaan bi ñun la ak yéen ngeen mën ko encourager wala ngeen séq ak moom waxtaan wala li leen yitteel ci zone bu ngeen nekk rek fii lañ leen ko joxee ci seen émission diaspora numéro yaa ngi nii di affiché au bas de votre écran ngeen woote ci 88 628 22 22 fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ngeen def 00 221 841 22 99 ngeen mën a dugg ci émission bi waxtaan ak suñu invité tey nga xam ne ñi ngi gis nii ci image yi euh, euh, roi bi di ko euh, honoré mais après naka nga dundee loolu bi polémique yi amee ak yu demee noonu naka nga ko dundee yow. bi amee bi ñu may joxee après xam rek. Mhm. wax yi xam nga foo dem. coow li ne kur coow li coow li coow li coow li xam nga. Mhm. yàlla defee loolu ma ne bon c' temps yooyu c' était juste temps yooyu fekk je pense que. Pape Diouf si boppam. moo doon tëgg euh, Zénith. xam mhm. wax yi bëri ma ne mhm. xaaral ma dem Zénith quoi xam nga. Mhm. le bi ma yeewoo nii war a dem Zénith xam nga ci laa seetaan benn émission quoi. disons de passage maa ngi naa expliqué. après. mère Adja dégg ci mère je pense que émission boobu sax bon ça se joue TFM quoi léegi moom muy def émission ci benn kii boo xamante ne dañoo wax jafe-jafe immigration xam nga yàlla dafa je pense que euh, émission boobu noonu vraiment ça m'a te aussi am na li ma fa metti loo xamante ne je pense que du question xam naa ne erreur la bon parce que erreur ku nekk comprendre mhm, parce que dama doon seetaan émission bi xam nga mhm. mu jël samay photo mhm. tegal ma ay fleurs sa waaye di ma jaale lundi ba vendredi <laughs> mais est dafa jël sama photo mën naa image sama iPad bii nii xam nga bii nii mën naa la woon kii bi xam nga léegi dafa jël sama sama sama sama image nii. xam nga mhm. mi ngi nii mun naa la ko won parce que xam nga fii. Uh-huh. comme genre mi ngi nii. waaw uh-huh. mais loolu loolu. loolu garaaw kenn jaale wu la exemple quoi xam nga xam nga loolu. pare tegal ma ay léegi nag di wane jafe-jafe mooy ñi faatu woon Europe. xam nga ci par exemple naa xam naa erreur la rek. ngi sant yàlla effectivement bu ñu dugg ci polémique xam nga xam nga dugg xam naa ne erreur la. mais c'est que wax ji. Mhm. par exemple képp ku la gis télé. woo la sa waay affiche nañ la fii ba ñuy bu laa cotiser non non ba nañ tëj parenthèse voilà voilà deewoo yaa ngi dund macha allah yàlla yàlla guddal sa fan voilà c'est juste ay polémique yoo xamante ne. voilà non non comme genre yooyu c'est c'est-à-dire que am na loo xamante ne mhm. xalil c'est c'est c'est c'est humain quoi c'est comme bëgg a souligner rek non non non amul problème amul problème xam naa ne loolu lu lu ñu kiyul la rek image la ko bu baax ñu def liggéey bu am solo voilà pas parce que émission am ko am solo boo xam ne dëgg la ñu koy nuyu bu baax voilà ñu ngi koy nuyu de passage ñu àggali rek di xaarandi mbokk yi ba tey ci 88 628 22 22 ngeen mën a dugg ci émission diaspora waxtaan ak suñu invité lii euh, nga xam ne nag euh, dañu ko jox euh, benn raaya bu am solo nga xam ne doomu Sénégal yëpp daf cee fier bég ci lool ndax nag fondation bi ko ko jox mooy Carnegie en 1911 lañ ko créé mu yàgg sagal doomu Belgique yi plus de mille Belges la leen honoré pour leur courage ndax nag wax ji pour la petite histoire dafa sauver benn Belge boo xamante ne ñàkk na ay baaraamam waaye continuer na di dund laasa na ci kaw loolu comme amaguñu appel dañu dem seetaani beneen élément dellusiwaat ci seen émission diaspora élément bi bi loolu yëpp ça a trait à suñu invité tey muy Khalil li ñu dem seetaan ko daal di ñëwaat ci plateau bi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV. Nous vous proposons aujourd'hui une émission un petit peu particulière car nous avons quelqu'un dans notre équipe euh, à qui nous tenons beaucoup d'ailleurs, Shaoki Nasri qui a eu, euh, on peut dire, un, grave accident. Euh, c'était au mois de septembre, voilà, euh, exactement. C'est une date qu'on n'oubliera pas, euh, dans le métro et qui découvre aujourd'hui la personne qui, on peut dire, t'a sauvé la vie. Oui, tout première heure, pour, pour le citer, où j'ai découvert que Lee Kelly m'a sauvé de, du, euh, des, des, rails du métro, où j'étais couché après un accident où ma main était coincée dans les ports du métro, et qu'il est vite descendu euh, sur euh, les rails du métro pour me mettre sur le, le côté, car quelques minutes après, il y avait un, un autre métro qui passait, et surtout, il a également appelé les secours pour qu'ils interviennent euh, le plus rapidement possible. Donc, euh, bah, c'est en gros, c'est grâce à lui que. Voilà, c'est le, le héros du jour de, voilà. de, de, ta vie entière. Donc, Monsieur Kali, vous êtes sénégalais, ça fait deux ans que vous êtes en Belgique. Vous avez été la seule personne à intervenir, alors qu'il y avait quand même plusieurs personnes dans la station de Brouckère. Bon, en fait, euh, euh, l'action était tellement si rapide euh, que moi j'ai vu que la main qui était coincée et que la main qui était coincée, que moi j'étais juste euh, près de lui et que moi je regardais et que j'ai vu que l'action commençait à passer. Mais en fait, deux secondes que le métro partait carrément et que lui... Euh, Bon, en fait, à la fin, je ne je, je l'ai pas vu, il m'a perdu parce que le métro l'a pris, euh, mhm, la en fait, l'a pris, l'a jeté comme ça, bon, arrasse et tout, et il était couché sur les rails. Et que moi, je vois, par exemple, euh, c'était trois minutes, euh, j'ai appelé la police, j'ai dit qu'il y a un mort qui est ici parce que les conditions que je l'ai vu couché comme ça, je vois que du sang dans la tête, et je vois que, franchement, il ne réagissait pas, il ne bougeait pas, et j'ai appelé la police, j'ai dit qu'il y a un mort qui est ici et qu'il qu n'a qu'à faire vite après une m'ont dit ok c'est quelle direction et je lui ai dit c'est la direction de Erasme et c'est à Débouquet ils m'ont demandé tout après moi j'ai descendu pour euh, pour pouvoir en fait euh, le pouvoir le mettre à côté du mur mm -hmm. pour que l'autre métro qui vient si c'est un peu lent que nous lui euh, nous lui broie voilà mu mel ne après lii nag gis nañ ne presse bi ñu ngi la doon invité et tout lii benn émission la woon mhm. lii voilà lii moom benn émission la woon je pense que c'était avant ñu may jox kayit quoi. je mhm. pense que aussi vraiment de passage bi maa ngi remercier Chawki la personne. mooy ki nga sauvé moom nga toog voilà parce que moom en personne dafa bind lettre roi bi. mu nekk mhm. le monsieur a sauvé amul kayit sans papier la xam nga. Mhm. vraiment def na un acte vraiment héroïque pour moi. je pense que vraiment maa ngi koy sant bu baax di nuyu jabar ji di nuyu doom ndax bi mu ko doon sauvé eh, sa femme était enceinte de neuf mois. je pense qu'aujourd'hui c'est li euh, ma doon waxee aujourd'hui grâce à. à, à, à vous mm -hmm. et vraiment euh, que mes enfants. Euh, vont le voir. papa. Mhm. vraiment it loolu rek déjà que su ma ci amoon kayit amoo ci woon dara sax damay jàpp ne que yàlla. def nga lu baax fay parce que boo defee dara te seetu ci doomu aadama wax ju am solo ngoog. Mhm. yàlla dalay fay. yàlla dalay que loolu quoi. Mhm. moo tax man lépp li ma def. loo xamante ne parce que addina tamit des fois da ngay def loo xamante da nga koy aussi da def lu baax. dëgg aussi da mais nit si boppam moom matul. xam nga man ci condition yi laa way nit nit ku nekk nga yéene ko jàmm yàlla may la jàmm. lu wóor nga wax waaye mu mel ne nag kon sa condition macha allah changé na ci lii parce que papier yi permettre na la léegi nga ut nga gën a nga régulariser sa situation. voilà ba léegi sax dama nekk si ñafe quoi. parce mhm. que life boo ci nekkee comme ni américain yi loo xam nga. perpétuel combat la fighting for your. right you know. Mm-hmm. parce que des fois aussi da ngay dem bon defal li nga war a def ko mm-hmm. le reste bon yàlla mooy joxe su ma yàlla joxee ma sant ko. Mm-hmm. su ma joxul ma sant ko. su ma faatu woon damay jàpp ne que yàlla. fii la newoon da nga fay faatu. mais je veux dire y' a une différence. bi nga amee papier yi léegi. ça t'a permis quand même de régulariser situation. vraiment tey jii ubbi bunt yu bëri. Mhm. parce que après am mhm. naa ci job xam maa ngi liggéey xam mhm. pense que loolu rek yàlla. xam nag yi euh, récompense yu demee nii nag day ànd xaalis bu bari. xaalis man de ah. yàlla xam ne jotuma <laughs> gisuma dara. ah médaille kese moom tubaab bi joxuñu la ko. xaalis non xam nga tubaab bi c'est sa waaye jox nañ na benn émission sax gis naa ay benn boy di mooy ci ñu naan xaali lii xaali mooy doomu kii noo ko parce que ñun dañu boo xamante ne bu la joxee médaille dañ leen mais man mhm. ne médaille bu ñëwee dañu nag bu la maani mais su ma jotoon yàlla xam ne may naan jot naa xaalis kon médaille bi rek lañ la mais je pense que am na li ma jot loo xamante ne moo ëpp xaalis. moo ko ëpp foofu ndax mooy kayit je pense que lii. Mhm. lii rek moo ëpp xaalis quoi. je pense que man pour man loolu la bu ñu ma joxee xaalis baax na suñu ma joxul encore dañu ma fekk si benn may ñafe. Mhm. comprendre jël. da ngay continuer comprendre ma joxoon ma jël mais wax dëgg yàlla joxuñu ma mais je pense que médaille bi rek. Mhm. et en même temps la Carnegie Hero je pense que ñoom dañu récompenser les gens qui ont fait des actes héroïques dans le monde. si round bi si monde bi yëpp xam nga képp koo xamante ne def nga tey ñoom ñu xool ñu xam ne vraiment t'as risqué ta vie dañ lay jox médaille d'argent mhm. te aussi médaille d'or bi maa ngi doon naan mais lu tax joxuñu médaille d'or mais après dama santal parce que loolu posthume mhm. bi dañ koy jox ñoo xamante dañ fa faatu ñoo mhm. xamante dañoo sauvé ay nit ñu faatu fa ñu jox leen ay médaille mu ci mel ne bu mel ne nag bu nekk ak rek li muy jëriñ euh, mi ngi nii rek un courage exceptionnel en Belgique après avoir sauvé un Belge de la mort xaali reçoit une médaille euh, du prince Philippe xam naa ne la sana dina ci euh, serré mu mel ne article bu ñu la defal la aussi Euh, mu nekk lu am solo pour wane rek li nga xamante ne euh, moom nga def te moom mooy raaya bi ñu la jox rek médaille bi euh, am na lu ko gën a am solo mooy këyit yi nga xam ne octroyé nañ la ko te képp kuy tukki ay këyit ngay ñaan macha mm-hmm. allah. Mm-hmm. ñuy ñaan mu jig la léegi nag yow dangay ñëwaat Sénégal lan mooy sa projet da ngay dem di ñëw wala ci lan ngay liggéey ex mun nga ñu expliquer. waaw xam nga projet àddina moom boo ci nekkee nga nekk nit bëgg tekki je pense que da projet mhm. Mhm. et je pense que projet dafa am solo ci doomu aadama dafa doon loo xamante ni saa boo yeewoo rek boo yeewoo àndal ak projet parce que àddina mhm. bi yëpp ay projet la dëgg la et pense que immigration tamit boo tukkee du question même boo fa amul xaalis je pense di nga fa am expérience comprendre parce que coono bu nekk ak métit bu nekk ndax man dama fanaan mbedd comprendre damay jaay daanaka man am na am na am na liggéey yoo xam ne comme genre yanuwaar la mais mënoo sàcc mënoo def leneen comprendre mais da ngay def gëm ne que yàlla mooy joxe mais nekkal ci live bi xam nga faytal xam nga nekkal comprendre bu yàlla bu yàlla ñëwee nga sant ko xam nga mhm. mais bul yaakaar ci doomu aadama bul mhm. yaakaar ci nguur yi wala bul yaakaar ci kenn mhm. je pense que tey jii yaa gis nga benn jour dama lay jox benn anecdote mos naa waxtaan ak benn italien xam nga après ñuy waxtaan nii quoi mu ne ma mun su fekkee sax mun naa parce que mun naa ko la expliquer italien mu ne ma xam ngeen par exemple léegi ñun suñu maam yi looro erano immigrati yi ñoom ay immigré la ñu woon comprendre mhm. mais bu ñu demee euh, ay Brésil ñu dem si yeneen dëkk après bu ñu amee dañoo ñibbisi ba looloo tax Italie dëkk kër goo gis ci suuf am na fabrique ci yeneen dëkk encore xam nga mhm. c'est que je pense que immigration même boo amul kayit wala amoo xaalis je pense que da nga fay dund lu bëri ndax di nga daje nit ku nekk di nga daje mhm. nit ku baax di nga daje ku bon mais je pense que loolu esprit d'ouvert la boo effectivement te boo xoolee ñu ci nekk tukki ak ku tukkiwul bokkul. Mhm. je pense que tukki du question kii rek mais. ouverture bi nga am solo mhm. que bon du ma naan bu mhm. je pense que tey jii bu ñu yombaloon affaire yi parce que da ngay xool gis na keroog euh, maa ngi gis euh, Mo Ibrahim tu vois mhm. le Mo Ibrahim c'est lui fondation Mo Ibrahim keroog dañoo daje c'est j'étais avec lui et euh, son excellence Ibrahim Boubacar Keita aussi bon il y avait une fii nii sax au Sénégal voilà voilà voilà doon nuyu sax après mu ñëw waxtaanoo ma ko bonjour gisoon parce que dama gisoon mu sol benn yére designer euh, bu rafet benn yére bu rafet xam nga hmm. moo ko na voilà ma ne ko vraiment série bi rafet na mais après moom si boppam daf ma xamal moom il a fait vingt cinq ans d'immigration en France xam nga mu ne moi j'ai fait voilà mu ne ma moi j'ai fait vingt cinq ans d' ministre mu ne ma gis nga ministre bi immigré la woon bi tamit immigré la woon ñëpp ay immigré lañu ndax mais mu bañ a doon fuite de cerveau ku dem jëli xam-xam dellu siwaat sa dëkk jëriñ ko lu am solo ngay wax mbokk yi ñuy di ba tey euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy woote xam naa ne fi mu ne non non téléphone baa ngi euh, explosé nañu woote ci 88 628 22 22 wala ñu woote tamit bu dee à l'étranger lañ nekk dañuy def 00 221 33 33 841 22 99 affaire bee saturé rek waaye xam naa ñoom ñëpp ñi ngi xëcc te xëcc bu daggul dikk may fàttali mbokk yi ñuy seetaan rek seen émission diaspora la ñu leen koy defalee altine bu jot ñuy am yaakaar ne kenn ku ne dina ci jëlee njëriñ ndax nag lii lañ leen indil muy vitrine boo xam ne képp ku nekk ci àdduna bi di doomu Sénégal di nga mën a lëndi nga toog seetaan lii jëlee ci njëriñ wala nga am loo xam ne danga ñu koy apporteel ndax xel du doy comme ni ñu koy waxee moo waral seen émission diaspora ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di euh, euh, nekk ni yow ci lan ngay liggéey exactement. bon c'est que instant bi man ci li may liggéey dafa bëri. businessman man c'est que man dama nekk nit koo xamante ne man job bi ma ma jël man amul complexe job. <laughs> des fois sax ñu suñu invité bi dafa dafa dafa am dafa am kii quoi. non <laughs> wa xam nga des fois ñu jël xaar xaar ki ci ligne bi nga door a ñëw ci loolu allo allo xam naa du ñàkk euh, mu rappelé waat ñi ngi leen di xaarandi ba léegi rek euh, téléphone bi xaw a am tuuti jafe-jafe euh, ñu àggali rek. voilà kon man man job amoo ci complexe. man je hmm. pense que liggéey. liggéey loo xamante ne liggéey kenn waru cee mi ngoog man des fois dañu may woo ci affaire déménagement di créer bagage damay dem. Hmm. des fois ñu wool ci raxas ndap nga dem comprendre. Hmm. des fois ñu wool si yenn job yu bëri man daal. naa liggéey rek. am sama xaalis quoi xam nga ma nekk aussi si forum des hommes d'affaires comprendre mhm. may nekk apporteur d'affaires par exemple je pense que tey jii si affaire bon bañ wax pib parce que mhm. affaire gis na je moom dañ ko fi bañ voilà dama ci <laughs> dama ci yëngu bu baax je pense que man dama jàpp nekk lu ma ko waxee rek sama uh-huh. sama xarit keps uh-huh. euh, je pense que man dama nekk si laaj bi di ñafee ko uh-huh. li ma fekkit ma jël comprendre li ma am ma jël ko ma xam ne lii vraiment dama ko liggéey comprendre ba yàlla jàppale ma mais daal loolu ma amal solo pour man sama laaj ma jël téléspectateur bi nekk en ligne gëm sa bopp daal moo am solo allo tey daal téléphone bi moom euh, mi ngi def ay chichi yi ñu ngi jéggalu bu baax ah téléspectateurs yi xam naa ne yéen ñi bëgg a dugg euh, bëri na ngir waxtaan ak euh, suñu invité tey ci biir loolu may wax rek bu baax ne la paix en Casamance am na ñoo xam ne ñu ngi koy cultiver la groupe Batiyaay ñi ngi organiser événement bu rëy ñoom Kombe Manga foofu ca Paris gis nañ bande annonce bi mu jàll sànq ñu ngi leen di nuyu initiative bu rafet ndax Casamance ci Sénégal la bëgg nañ ñëpp rek mu am li nga xam ne moom moo di jàmm groupe Batiyaay bu ñoom Malan ñi ngi wax rek événement bi na ñëpp converger dem ci le 19 Paris c'est pour que euh, la paix euh, ñu àggali euh, xaalis suñu waxtaan ci biir émission diaspora mm. tey jii da nga dellu si waat da dem di ñëw wala lan est-ce que aujourd'hui li nga xamante ne parce que boo xamee li nga xam ne moom la immigration di dugal ci réew mi ngay yónnee weer bu dee xaalis bu takku xaalis bu bari boo xamante ne est-ce que Euh, politique immigration bi nga xam ne teg nañ ko ci dëkk bi nga xam ne kuy yónnee léegi sa famille lay yem yu demee noonu yow ci ban fànn ngay gën a yëngatu xalaat nga teg fii dara wala pour que mu jëmale kanam économie dëkk bi comme ni mu la ko expliqué xam nga des fois dañu naan jàmbaar dawul mais dafa wuti woon doole mhm. et je pense que doole boobu noonu mhm. ci la ñu nekk xam nga ba yàlla bon fii moom boo fi nekkee wax dëgg yàlla da ngay am déjà que immigré bu nekk am nga projet mhm. projet yi mooy lan mooy que yow déjà que da nekk kenn en Europe comprendre des fois sax yàlla xam ne xool doo am un euro ci sa poche comprendre des fois am kilo woo nga xañ sa bopp envoyé kooku te kooku noonu ngay envoyé yàlla xam ne bu jotee affaire bi du la woo sax di la di di nekk immigré si boppam moo xamul coonoon nee nan la coono bu nekk boo fiy jugee booy dem boo eggee boo demee ak man daal gëm naa ni xëy na bu ñu faatoo sax yàlla jàppale ñu quoi si côté boobu bi yàlla na yéex di xaarandi ba léegi rek mm. ci yi may fàttali tey suñu invité nag dafa def benn acte bu héroïque boo xamante ne Sénégal yëpp fier nañ ci mooy sauver benn nit koo xamante ne benn belge la ci métro ba tax na nag dëkk ba ñu daal di koy jox euh, lii di ay këyit buur bi ci boppam daa di koy décorer euh, jox ko benn raaya boo xamante euh, tax na képp kuy sénégalais rek tey tey tey fier nga ci surtout nag la nga xam ne moom moo ca topp muy euh, papier yi nga xam ne euh, jox nañ ko ko te képp kuy sénégalais fier euh, tey ji ban approche ak ban regard la nit ñi di am bi nga dellu si waatee sa dëkk dégg nañ histoire bi fi nga xam ne fa nga dëkkoon lan lan naka nga koy dundee ak lan la la nit ñi di wax nuñ koy accueillir. waaw sant yàlla xam nga am na ñoo xamante ne boo amee moom dañuy sant yàlla dañuy kontaan. am na mhm. ñoo xamante ne boo amee. baat dañuy mel xam nga dañuy dañuy xam mooy loolu mais àddina moo demee noonu xam nga Mm-hmm. tey jii boo lii moom dama jàpp ne lii waroon am sama life la. Mm-hmm. après damay continuer xam nga mm-hmm. li ma waroon jàpp. parce que waaw bi nga ñëwee quand am na ñoo xam ne waxtaan nañ ci ak yow te kontaan nañ ci affaire bi. fi nga dëkk. voilà mi ngi am na ah, ñoo xam ne que de passage maa ngi vraiment sant sama mbokk yi vraiment di sant euh, ñëpp wax dëgg yàlla xam nga ku lim juum. te je pense que àddina moom mu jàppalante la comprendre et je mhm. pense que ñi ma jàppale it maa ngi leen sant it xam nga ñi ma tamit dama leen sant parce que àddina moo demee noonu xam nga mhm. mais c'est que pour te dire que des fois gars yi bu ñu déggee médaille dañuy foog da nga dañ la jox ay milliards xam nga des fois sax parce que ñu jël xëy na téléspectateur bi boobu dina dugg dogguma la ñu jël kii allo allo oui maaleykum salaam. sëñ bi mun nga ñu baal nga wàññi tuuti rek sa poste télévisé bi. voilà noo tudd ak foo ñuy woowee. waaw kon maa ngi tudd Babs boo waxee nag sa waay dina xàmmee. donc euh, maa nekk fii ay naataangoom. fan nga nekk Belgique xaruna ak euh, Buya. waaw nee na Babs di nga xàmmee. Ah, ñoo ngi lay ziar. waaw yow rek la ñuy déglu Babs. waaw léegi nag ki ngeen invité waaju baax la. Mhm. donc euh, moom du ci acte du du seulement acte météo bi. Mhm. mais même sur suivi courant bi nii. ñoo ngi dund ak moom fii ci biir Belgique on le connaît très bien. Mhm. nit boo xam ne la il est lépp lu Sénégal yooyu def moom ci biir. ndeysaan donc muy màggal gàmmu ak lépp waa joo xam moom xol bu rafet la rek. Mhm. donc moom vraiment. tamit acte bii mu def tamit acte la boo xam tamit si gir na Sénégalais yi. donc euh, su nee ba ne acte civisme. def na ko donc la veut dire que. mu ngi ñëw na wut ci xaalis dem na donc ñu ngi participer tamit ci sécurité réew mi mhm. ñu ngi participer tamit ci développement wu Belgique ak comme développement nga mhm. koy encouragé rek mhm. donc di ko ñaax tamit mu gën a fas jom donc euh, waa ju baax la quoi dëgg la donc euh, yow yaa ngi foofu depuis combien d'années waaw bon man moom maa ngi fi depuis presque six ans 6 ans naka mu nag naka dëkk bi moom nijaayam laa sax moom mii dina ma xàmmee quoi. ah nijaayam naka dëkk ba nag. alors donc naka dëkk ba. Euh, vraiment mooy lu ma expliqué rek donc y a réalité yoo xam ne moom fii ci biir Europe. Mhm. donc euh, réalité yi bëri na fii. Mhm. alors comme nu ma expliqué sànq nit ku ñuul vraiment comme sénégalais ñoo ngi fii ñu wut si di daan suñu doole. Mhm. mais bon tamit comme li nga expliqué alors actuellement comme moment crise yi nit ñi nekk. Mm-hmm. donc ñu bëri tamit seen xel moom ci dellu ci jéem a def dara Sénégal. dëgg la ñu lu ñuy ñaar rek ñu autorités yi fa nekk ak ñi di ñëw fii. Mm-hmm. ñu bàyyi xel tamit ci ñi fi toog donc suñuy ñëwee tamit ñu mun ñu yombal lu bëri. dëgg la sur le plan d'investissement ñu yombal ñu tamit sur le mm-hmm. euh, tout ce qui développement bu ñu benn pierre bu ñu bëgg indi ci développement Sénégal quoi. Mhm. donc comme on le dit on n'est pas venu pour passer l'éternité en Belgique ou bien en Europe ou bien en Afrique centrale. Mhm. donc on est venu pour chercher suñu amee ñu bëgg indiwaat suñu dëkk. dëgg la benn pierre mu jëm ci kanam. Mhm. donc yéen tamit ñoo leen di rafetlu tamit seen émission. seen émission bi tamit baax na trop parce que euh, émission la boo xam ne tamit dinañu fas jom tamit. dañu yokk jom chose qui bouge Sénégal. donc euh, loolu tamit dañu permettre tamit ñuy mun dellu si tamit di mun jéem a def dara. dëgg la alors donc man lu ma bëgg a lu ma bëgg a tàggatoo gaal yi courage donc mhm. ñoo koy woowee fii Ekon. Mhm. donc Ekon ñoo ngi leen courage rek. donc mhm. euh, xaaral ma paas la benn naataango bu fi nekk bu tudd Harouna. d' accord mu waaw sëñ bi na tudd. maa tudd Arouna Deme. waaw yow rek la ñuy déglu Arouna. waaw maa ngi nuyu sama boy bi ah, Gali. Mm-hmm. vraiment moom nit nit ku baax la quoi. Mm-hmm. nekkul question lu mu defee mais vraiment lu mu si dëgg nit ku baax la yëpp xam nañ ko fi baax. Mm-hmm. maanaam moom nag yàgg na depuis ça fait longtemps yaa xam xam xam nañ ñu baax quoi. yow ñaata at nga def ah. foofu Arouna. man def naa léegi euh, cinq ans fii léegi quoi. cinq ans naka ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah mais franchement lu mu wax dëgg fii moom dafa dafa métti. tukki moo boppam tukki boppam moom def boobu moo gëmee ñoo sant yàlla bu baax ko dëgg la yàlla baax na yàlla na leen yàlla dolli courage. waaw ñu ne boo génn si dëkk ñëw fi ma dangaa ñëw rek pour wut boo amee da ngay dellu si dëkk quoi. dëgg la. franchement ñoo ngi fii ñoo ngi fii góor góorgóorlu de. Mhm. mais moom moom nit ku baax la moom franchement moom nekkul question lu mu def moom day jàpp ak si même même Sénégal da koy jàpp ak say mhm. Sénégal yu wax nañ ko de franchement moom ne question nekkul lu mu nekk génn tere mais franchement mhm. moom man ak moom nekkul tey dëkk démb man ak moom la woon mhm. ñi ngi koy remercier di remercier Babacar ak Aaron ñu woote ñooñu foog naa ne xam nga leen. waaw téléphone bi moo am tuuti jafe-jafe rek ñi bëgg a dugg a bëri. voilà xam nga c'est que boo si benn dëkk. je mhm. pense que te ñoom li ñu wax dafa am solo nee nañ du acte bii kese. voilà voilà te ci biir reportage bi aussi wax nañ ko nee nañ da ngay participer ci daayira yaak ak yu bëri bëri yaa ngi ci participer. xam nga dafa am benn éducation xëy na boo ko amee wala nga mhm. nekk ci kër gu yaatu mhm. comprendre mhm. ngeen doon benn kër famille ñëpp yéene jàmm rek ku nekk yéene keneen ki jàmm je pense que boo demee esprit boobu noonu je pense que ngay demee xam nga des fois dina metti ñii di la rejeter dina metti ñi dëgër comprendre mais toujours yow jàppal na ki bi nga am ni boo demee utiliser ko xam nga man mus naa ñëw par exemple ah. euh, euh, dañ may jàppale su ma nekkee si ay tolof tolof it waaye man dama jàpp it aussi man su ma gisee nit ku nekk tolof tolof. da koy jàppale parce que am na benn mhm. nit boo xamante ne. Mhm. des nga dox rek gis ñuy franc ci métro yi. xam nga mhm. ah, ah. ko nga jël ko yóbbu sa kër mu fanaan fa. je la utum la. Ah, doguma la bu la yàlla dog li ñu cërale woon ci waxtu jeex na. xam naa du ñàkk sax nga dellu si waat. ñu defaat émission bi parce que tey dañu am jafe-jafe tuuti ci li nga xam ne mooy wàllu téléphone c'est les aléas du direct te mënut a ñàkk mais en tout cas kontaanoon nañ torop ci am la ci plateau bi ma bàyyi la nga nga tënk rek tàggatoo laata ñuy euh, jeexal. voilà je pense que déjà maa ngi lay gërëm Kebs yow mhm. déjà mi ma invité. et je mhm. pense que aussi. maangi mboɗo salmina bandiraɓe kala to mbawɗa wonde voilà <laughs> kala to mbawɗa aduna ko muñal et je pense que maangi sant ñëpp ku lim juum xam nga la ko dinañ comprendre ñëpp ñëpp so yàlla wax dëgg yàlla jërëjëf kon ñëpp uh-huh. loo xamante ne xëy na nako sudul noonu maa ngi uh-huh. jégal bu baax te xam ne vraiment nit mooy wax te non wallaay wax ji wax ji jub na yëpp mun nga juum quoi su fekkee vraiment maa ngi jégal bu baax a baax uh-huh. di jégalu bu baax a baax wax dëgg yàlla jërëjëf ah. jërëjëf kontaan waxtaanoon nañ ci toog ak yow di nuyuwaale nag bu baax laataa may jeexal maa ngi koy nuyu nuyu bu spécial muy ki nga xam ne moom moo di Kumba Gawlo Seck damaa yéex a jot ci li nga xam ne moom moo di invitation waaye yow euh, fàtte xaju fi tey reconnaissante nga lool yal na la yàlla jàppale nga jëm ci kaw ci kanam ci lu baax kontaan naa trop euh, te yal nañu yàlla wanalewaat euh, ci li nga xam ne moom moo di jàmm sa carrière foo ko xalaat nga romb ko di leen dig daje altine bii di ñëw nag ci beneen numéro wu diaspora ak yeneen invité kontaanoon nañ xaalis lañ doon invité tey du ñàkk sax yeneen jëmmi jamono ñu andiwaat ko ci yeneen waxtaan ngir gën a yaatal ndax tey euh, temps bi permettre ñu ko torop di remercier bu baax borom Nayman coiffure Nene Diallo avec toute l' équipe euh, bi nga xam ne ñoo jàpp ci émission bi Laasana Bamba Fifi ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax di leen wax nañu fanaan jàmm ba altine bi di ñëw incha allah ci beneen numéro yu Diaspora